dafa bëgg Zarko diree ko daa ko loolu la mën a def pour am li mu bëgg ñu ngi leewtoo Zarko mépp na Zarko mépp na Ada Fass wàcc ci gàrdam Cheikh Omar Zarko Ada Fass ay waa Grand reer waa Fass mbaa di reer arbitre nee na leen bëre leen boo mel ni combat démb bi teel bari ay avertissement bugguñu ko Zarko day dem tekk na genn ndombaam sànni ko Ada Fass ci diggante tànk yi Zarko tibb na suuf laal ci loxo yi Zarko Ada Fass <coughs> round d'observation Zarko wa ngi seere Ada Fass a toog ci ay tànkam chose normal Zarko jox na ko cër c'est normal arbitre toogal Zarko Ada Fass eh Fallou Diaby Karamba foo ne namu naa la Fallou Diaby Karamba foo ne namu naa la eh Fallou Diaby Karamba foo ne buur namu na la njaag ba na la njaag lan la hey maître Ndiak foo sama waa ji sama soppe sama xarit hey Momo Ndiaye borom oto yi bàyyi moo di buy hey Momo Ndiaye borom oto yi bàyyi moo di buy def katu lu baax li maa ngi lay nuyu man buur Momo di nuyu waa marché Moussa ta ca Fass di nuyu Ismaïla Ndiaye sama électricien bu mag boobu Cheikh Omar Sarko Arafas Arafas cokaas Zarko mbalee na ko Zarko waaf na Cheikh Omar ko waaye Cheikh Omar ma ci li def Ada Fass dafa war a xaar bu mu dem Zarko cokaas na kurpañ jalagul jàppante guñu Zarko mu ngi wàcc ci gàrdam rukum taje wala cooki arbitre gi naan lay bëri leen runkum taje wala cooki lan moo ci am dañuy xaax wala dañuy bëre Cheikh Omar xaw ma Arafa cokaas na Zarko day dem Zarko day dem wala aar la bëgg dem aar na su ma doon moom Cheikh Omar damay taxaw Zarko mooy luur daf ko war a bàyyi mu dox jëm ci moom Zarko tey li ko war a daan ci erreuram la jóge arbitre àtte na da leen jox avertissement léegi règlement CNG dafay strict Cheikh Omar te yoon la nit ñu bëri moo leen fi indi wala xeex ku ci nekk ñoom ñaar jël nga avertissement arbitre sible waat na Zarko alanda ala Fass doomu Fass fallu jaabi karamba Boora nga lay nuyu maître Ndiago ba maa ngi lay nuyu ay Momo Ndiaye borom Faas Momo Ndiaye borom oto yi sama waa ji baax ci man gën ci man Ada Fass ngi seere Cheikh Omar Ada Fass ngi seere Ada Fass ngi seere Zarko aj na lewtoo bi Zarko aj na lewtoo bi ñu ngi damante ay baaraam ñoom ñaar ñu ngi damante ay Zarko wa ngi armé loxo ndi jooram Ada ngi seere Ada Fass day ñëw xeex ba daje nañu daje nañu ju daje nañu ñu ngi bëri ñu ngi bëri Cheikh Omar ñu ngi bëri Ada Fass mbot ma mbot bëgg déclenché Zarko comprendre na Zarko rasu na Ada Fass di la bëggoon Cheikh Omar Ada Fass liggéey Zarko Ada Fass Zarko eh, ngi dóor Ada Fass ngi jàpp Ada Fass ngi jàpp Ada Fass na Zarko ngi dóor ay coup ci suuf bëgg Ada Fass sigi mu ngi door ay coup bëgg Ada Fass Zarko li nga may Ada Fass Zarko li nga may Ada Fass bari na moytul nga sigi ñu caxabal la wéeru la Cheikh Omar Zarko li nga may Ada Fass bari na moytul sigi ñu caxabal la wéeru la boo boobaa waa Grand Yoff ñibbi Zarko wa ngi dóor Cheikh Omar suivre Zarko ma ngi dóor Zarko ma ngi dóor Cheikh Omar Zarko ma ngi dóor li mu may Ada Fass dafa bëri Ada mot ma dakoo koo bëgg a takk Zarko ma ngi koy jox ay coups Zarko dafa bëgg Ada Fass bàyyi waaye lim ko may bëri na man pour d'accorduma Zarko boo siggee ca caxabal la billaay barke Rasulullah Cheikh Omar waaw bu ko lijjantiwul waaw kay loolu la Ada Fass nga jël ay coup mais Ada Fass su riposté wul Cheikh Omar coup yee koy daaneel waaw mais bu ko dina jël coup yi te riposté wul dafay daanu waaw mais buñ lay dóor da ngay wut plan B Cheikh Omar Ada Fass Zarko waaye dinañ ko xaañ làmb la Zarko Ada Fass Ada Fass da koy find Cheikh Omar Ada Fass da koy Zarko Zarko nga koy ci kanam Zarko nga koy ci kanam sew Omar Zarko luur la luur contact bu bëri jaaduwul ci luur buy bëri ak léger Cheikh Omar lamb lay wax Zarko xam na li Ada Fass bëgg a xam na ko du lii déedéet duli lii du luur booy bëreeg moom da nga koy juumloo du lii Ada Fass bëre bi commencé na fëri yow ci moom Cheikh Omar mais nag xale la Zarko mbotkat la ñaari mbotkat la ñaari mbotkat la ñu Ada Fass ko bëgg fit da bëgg a fit ndax mooy xale laay la waxoon naa la ko Cheikh Omar waxoon naa la ko Cheikh Omar waxoon naa la waxoon naa la ko Doudou lu ma la waxoon Cheikh Omar dama xam làmb Cheikh Omar Cheikh Omar dama xam làmb booy buur daa xam làmb xoola waa Fass yi ñu ngi damm siège yi ma lu ma la waxoon xoola waa Fass ñu ngi damm siège yi newoon naa la teel na yat ma newoon naa la Zarko tey ci nam la toog yat ma li jaaduwul yat ma Cheikh Omar kon tey Bour Gueweul Pa Omar tey Bour Gueweul tey daa ñëw joobal Dakaractu dama leen a joobal si a ah. tey yat ma dama ñëw joobal si Dakaractu waaw tey waaw waxoon naa ko waxoon naa la ko. ma gis aara nu ko sotti comme wow. waaw ne woon naa la. tey eh, aara fan desaan jëkkoon na Sarko. waaw Sarko da xale bi yoonam dafa teel. dëgg la. xale la. dëgg la te Sarko. mag mu mën a la. waaw te yu reculé. dëgg bi ñu jàppantee dama ni Cheikh Omar. waaw aara Fass li muy bëre du yoonu bëre bi. dëgg mooy na jox ko Sarko. Sarko uh-huh. mamp da wuti ko su ko defulee dina am lu ko naqari. parce que ma gis dafa dafa nekk si lambam tey. waaw Zarko tey mais dama gis tey sawarul sawarul dara. non sawarul. tey am na lu leen naqari tey tey Fass am na lu leen naqari. Cheikh Omar. Bour Gueweul ak Dakaractu wala. waaw Cheikh Omar yar ma. waaw ak Dakaractu d' accord. waaw Bour Gueweul ak Dakaractu. retour Bour Gueweul. dara